bi ci émission sunu gaal sama xalaat seen xalaat mu doon loo xamante ni <coughs> lu ñëpp bokk la comme toujours niñ koy waxee lu ñëpp bokk moom te mënuñu ko séddoo j'espère que dama yaakaar ni rek dañ koy péncoo ñu ngi am mbégte nag aussi di daje ak yenn saa su ne mais tey ñu bëggoon wax ci ñaari ponk ñaari ponk yi muy entre Boubacar sëy ak 94 milliards yi yi Mamour Diallo yi nga xamante ni moom la jëloon te Ousmane Sonko tudde woon ko ko waxoon ko ko génne woon ci lu leer naññ tey nag ñu gis ki nga xamante ni j'espère que njort nan ni am na benn sañ-sañ bi te am na benn responsabilité bi am na benn dignité bi ndax ndombal tànk bi nga xamante ni mooy liñ ko dénk te jox ko ko mu xëy suba rek def ci lu ko neex muy procureur ak li nga xamante ni wax na ko ci Boubacar Seye dafa laaj dafa laaj li mu laaj moo di am na ay milliards yoo xamante ni moom la union européenne génne jox ko gouvernement Sénégal tey mu am ci ay suuf yu leer nañ dafay laaj doom gouvernement Sénégal milliards yooyu ana fan lan ko dugal wala ana fan lan ko def mais loolu loolu jërul dóor nit kii laaj mais yàlla mu dig la laaj fasal zikri in kuntum la taalamuun parce que lu tax hal kon bu doon am jawaab dafay doon jawaab bi laa yastawa yàlla moo ne <clears throat> yéen ñi ñi amul ci li jàpp lu leen leer wala yéen ñi nga xamante ni yéen lañu jiite te ñi leen jiite di am lu nuy def lu leen kump mais am ngeen droit laaj leen yéen li ngeen leen dénk wala liñ leen jiitee mais c'est parce que loolu l'islam mooy li ko jëkk digle parce que ba fekkente ni ñàkk xam la di wax ay lënt lay andi wala mën naa réeral nit ki moo tax alxuraan wax ne ndax ki xam ak ki xamul daanu yam kon bu doon am jawaab maanaam jawaab bi mooy bu fekkoon dafa doon am tontu dan naan yàlla laa yastaw waa dunu mosa yam kon bu Boubacar Sèye ñëwee laaj loolu cent et quelques milliards mais je pense li fi war mooy yan firnde nga am do bu la loolu sax danga naan ko yan firnde nga am ba tuumaal ma yan firnde nga am ba tuumaal ma mais kii dafa laajte wax ni njiital union européen moo ko envoyé ci emailam ay information mu ñëw di ko laajte kon que bu leen joxee information bu faux wala bu teguwul ci yoon wala li muy laajte teguwul ci yoon da ngeen koy xamal ni que union européenne li nu wax loolu moo doonul dëgg ñëpp xam ko ndax mu leer. loolu kase la soxlo soxla mais soxlawuñu ay dóor doom làq doom te man damay njort ni fi situation bi toll ba tax na procureur bëgg classé dossier Mamour Diallo 94 milliards milliards yi kon il faut que ñu jéem a jaara fii pour def lii Boubacar Seye kase pour def lii Boubacar Seye wane ni keneen waratul wax ci quatre-vingt-quatorze yi wala boog nanu def lii su ko defee quatre-vingt-quatorze milliards yi bu nu téewee Boubacar Seye ci loo xamante ni teguwul ci yoon quatre vingt yi ci boppam nit ñi daan ko fàtte te bañati coowati ci quatre vingt yi tey coow ci affaire Boubacar Seye ñaar yooyu rek moom la am moo fi am mën ngeen nopp diplôme lool man ngeen nu dàq jàng loolu mais bu dee xam-xam ak xarañ bi yàlla di joxe yéen yëg leen ni ëppalewu leen ci sénégalais yi parce que ragalu leen yàlla ba yàlla di leen ko jox mën ngeen nu ëpp diplôme mën ngeen nu ëpp xam-xam loolu mais dama ni bu fekkente ni loolu kase la te njàng moo leen ko jox jàpp leen ni mën ngeen nu dàq jàng waaye mënu leen lu ëpp xam-xam parce que ragalu leen yàlla ba yàlla di leen jox xam-xam gis nga maanu dafa am valeur trop ci doomu adama surtout boo nekkee njiit mais mënoon nekk ci benn koor ñu teg la fa soit que magistrat nga wala procureur nga quel que soit alpha yëgal ni bi ngay jàng sa wayjur jur woon ni sax ba xam ku tudd Macky Sall bés dana ñëw mu mos a jiite réew mi ba nga bokk ci ci boobu ci boobu ci boobu gouvernement wala ba nga bokk ci boobu nguur wala ba nga bokk ci boobu koor sa jur sonn na sa njàng guddi ak bëccëg suba ak ngoon kenn fekkewul nga paase lu bare ci sa dund loo xamante ni li nga dese sa dund tekkeetul dara li nga dese sa dund tekkeetul dara parce que li nga paase sa dund moo ko ëpp donte danga ko dooroon sax ak dund gu gàtt gi ak dund gi nga xamante ni tey dangay romb nit ak ñaata kilifa ci diggante bi moom la ñuy wax ni moom la mbas mi yóbbu ndax yow yaa ngi xalaat ni bés dana ñëw nga dem tribunal doo ñibbi sa kër ndax yaa ngi xalaat ni bés dana ñëw 94 milliards yi nga xamante ni moom nan lay toppe nga dugg ci premier jour biir ba mer ndax yaa ngi ciy xalaat sa diggante ak sa boroom rien de tout ngir ak bëgg loo xamante ni mooy li neex nit parce que Barthélémy Dias teel na ko wax waat ci yàlla ni waat ci yàlla ni 94 milliards yi du mos a leer parce que dafa am ñu ci laal tudd ci ba tudd ci Macky moo tax du mos a leer kon bu ngeen xëyee suba def lii man je pense que li ma gën a yéem nee naa Mamour Diallo moom bu fekkee am na sëriñ bu fekkee am na sëriñ sëriñam war na seetaat boppam bu fekkee am na sëriñ sëriñam war na seetaat boppam bu fekkee am na sëriñ bu mu jébbalu si jamono yi nuy dund nii sëriñam di dund di xam information <gasps> billahi sëriñam war na seetaat boppam kon nga xam ni la olof waxoon démb ak bërki démb jógu fi olof dañu woon biteel bu ne la mu xeeñ rek la saañ woy xeeñ biteel bu ne la mu xeeñ rek la saañ woy xeeñ kon c'est parce que da ngeen yaakaar ni lii mooy àddina booba nax ngeen seen bopp sénégalais yi li ëpp ci ñoom li may faral di wax dafa am loo xamante ni li koy régler duwul toog rekk di wax pesum kanam borom moo koy fajal boppam ndégam am na jom pesum kanam laa wax gaay je pense que borom moo koy fayal boppam fayul boppam ndégam am na jom kon nanu xool sunu diggante sunu suñu borom yéen même bu doonul jullit même j'espère que bu fekkente ni doonu leen jullit jàpp leen ni bés dana ñëw daan leen suul bés dana ñëw daan leen suul te bés bi leen di suul bu leen suulee ba pare ak ku ngeen mën a àndal fara leen di bàyyi la fa des nag mooy saad ya nga xamante ni moo fay am la fa des mooy xéewal yi war a am wala bànneex yi nga xamante ni moo la fa war a fekk mais it wala naqar ya nga xamante ni moo la fa war a fekk nga naan suma yëgoon nga naan suma yëgoon c'est parce que yéen respecté leen sénégalais yi yéen respecté leen sénégalais yi respecté leen sénégalais yi xam nga bugguma ko ci woon sax dolli parce que bugguma woon sax di wax ci waxam bërki démb yaa ngi dégg déclaration Marème Faye sal ñu koy defar interview RTS xam nga mooy la ma doon wax dama ni woon Marème Faye Sall dof gi mu dof je bee may moom dof gi mu dof ak dof gi ñu ko doon waxal bu ko nit jàppee bu ko nit mës a jàppe ni dof la boo xamante ni dafay dox ci mbedd mi di dàqe wala dof di yuuxu déedéet loolu du dof gi woy Sadio maa lay ziar naka foofu nag naka biir yi ziar naa la bu baax dof gi du foofu loolu il faut mu leer dof gi mooy dof gi mu dof ci wax dof gi mu dof ci wax ak ñàkk bi mu ñàkk nite gis nga dof li ngay jëkku xooleen mooy ay vision ngay jëkku xool ba xam dof la wala du dof boo xoolee ay xoolinam rek xam ni xoolinu dof lay xool boo dégloo ay waxam xam ni waxi dof kase la waa ji doon wax waxi dof waxi dof Marème Faye Mansour Faye waxi loolu na dugg ci nopp sénégalais te xam ni bu ñuy wax waxu dof loolu la heure bu ñu waxee ñoom déglu leen bu baax heure bu ñu waxee c'est la famille si ñi ma ci xam c'est la famille ci ñi ma ci xam heure bu ñu waxee waxi dof Sénégal nag la waaj a waxoon daf fi xaw a nekk xam nga muy lan alal alal alal alal kenn du ko xoolee nit parce que seexluwul nguur kenn du ko xoole nit parce que seexluwul ndax yàlla dafa am sañ-sañ gu day na ko yuxruju al mayti min al xayyi wa yuxruju min al mayti sañ-sañ boobu la am am lu ko ëpp mooy fekke luy dund mu génn ci luy dee fekk lu dee mu génn ci luy dund sañ-sañ boobu bu ko ëpp la sunu borom am moo tax alal seexluwul waaye kenn du ci considéré doomu aadama nit la am du nit nguur kenn du ci considéré doomu aadama nit la am du nit parce que lu tax xul innal fadli bi yadillahi yuuti man yacha yuuti man yacha moo tax yooyu kenn du ci considéré doomu aadama nit la ak du nit waaye doomu aadama léeg kay considéré mi ngi concerné jëfam jëfam ak naka la nekk ak nit ñi waaw naka la nekk ak nit ñi mais koo xamante ni uur bu waxee waxi dof bu génnee génni dof yow sa noppi moo gënoon sa wax sa noppi te suturaal sa bopp moo gënoon sa wax ni la yàlla suturaalee mais sénégalais yi problème bi na am mooy saa su ne li ñuy xoole nit rek mooy li na mën a am ci moom te loolu problème sérieux lañ def moo tax waxkat ba waxoon ne haasi zamaan ñu ne ko waa mu ni zamaanu xaalis wa mbubba mu jot wa illam yakunu mbubb mu jot wa xiila kii lu ko jot yooyu ay feebar la yoo xamante ni il faut que sénégalais yi delluwaat gannaaw ñi ma ko sañ a wax bokk wala lenn ci nit yi nga xamante ni seen xel màccul ku mel na man ñu delluwaat gannaaw bu baax a baax a baax a baax a baax ba ci lenn suñuy njiit ba ci lenn ci suñuy njiit yi nga xamante ni bala ñuy mën a dénk nit dara loo xamante ni alalu senegal la rek ñu ni sama waay la wala doon na ma jàppale te yéen ndax dañ leen xaaroon ci diw doon na ma jàppale wala diw sama waay la lim doon xaar ci yéen du loolu mooy compétence lañ doon xaar ci yéen doon xaar ci yéen du loolu mooy jëf ju tegu ci yoon lañ doon xaar ci yéen lim doon xaar ci yéen du loolu mooy yàq te moytu yàq defar te moytu yàq lañ doon xar ci yéen parce que je pense que loolu mooy li nga xamante ni mooy li ngeen nu déggoon loolu rek mooy li ngeen nu déggoon mais loolu mooy doon li nga xamante ni mooy sunu problème tey mënuñu ci am dara lu metti la. ci ni ko sénégalais yi di dunde lu metti la mais mën nañ ko faj mën nañ ko faj parce que wax naa toujours ni ñëwub Macky Sall la ak falub Macky Sall yàlla mi ngi ko jaarale ci sunu loxo dama ne ay jinne falunu ko ay malaayika falunu ko ma Macky sàll yàlla nga jaarale si suñu loxo te yàlla yàlla nag bay sa tool yàlla yàlla bay sa tool buñ si jógee rek folli ko ba mu set wecc parce que inna allaha la yugayiru ma bi qawmin xataa yugayiru ma bi anfusikum loolu bu doon am firi ci wolof dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg wolof mooy yàlla yàlla bay sa tool yàlla nee na amul lenn lu ngeen di décider bëgg ko ta du ngeen ci taxaw pour ma jàppale leen kon lu mu mënti doon lu ne da ngeen ciy taxaw rek donc ma jàppale leen mais bu ngeen ci taxawul ma seetaan rek c'est ça le problème yow Macky tey yow yow yow sa bopp ma Macky Sall yow sa bopp. ndax yaa ngi def ndax yaa ngi def ndax yaa ngi bàyyi xel ndax yaa ngi xalaat tey ñaata nit ñoo la bëggoon doon la topp tey ñaata nit ñoo amoon intention ci yow bu rafet tey ñaata nit ñoo bëggoon lu baax ba lépp lu nu am lu nekk ñu yëkkati ko def ko ci li nga nekk mais tey bu ñu minti multiplier ñoom ñëpp génn nañu ci yow yow ñi baax ñëpp génn nañ ci yow ñi baax ñëpp génn nañ ci yow ña fa des kañ na ñuy ñaanal yàlla yal yàlla def ci ñoom lu baax ba lu génn ci yow mais yàlla na yàlla def ci ñoom dégg-dégg bi nga xamante ni mooy li Sénégalais yi dund te mu metti ba ñi ànd ak yow génn ci yow parce que ñun ñii ñëpp dañu àndoon ak yow. ñun ñii ñëpp dañu àndoon ak yow guddi ak bëccëg suba ak ngoon kenn mënuñu woon wànc kenn mënuñu woon yóbbu ci benn côté kenn dañ daan toog fekk ay nit yu ba a ànd ak yow mais dañ leen di convaincre ba nu ñëw mujj ñëw ànd ak yow. tey nag ñooñu ñoo am dëgg suñu kaw tey ñooñu ñoo am dëgg lu de maa ngi maa ngi jégalu ah, maa ngi jégalu way